décision bi est-ce que mais est-ce que tey fi ak euh, le 25 février même bu féké sax conseil constitutionnel dafa wax ni na président maintenir le calendrier mais est le 25 février possible ñu amal fii ay élection mu légalement retardé dama ne le 25 février techniquement mm-hmm. xam nga fo xala ñatti mbir la lay waxal mm-hmm. président bureau de vote ñu wara former sa sax formé wu leen joruñu leen formé jëluñu benn président bureau de vote xam nga ban la fi jël retiré fi président bureau heure laa fekk jël président bureau de vote yépp ku nekk jot sa feuille gouverneur wala préfet wala jox sa notification à l'appel du potentiel parti leen jël. Mhm. est-ce que matériel vous avez ko yëpp. demul moo tax la ma la wax. man gis magistrat nee ma. Mm-hmm. ñoom élection de un mois. vous leen yóbbu séminaire. Mm-hmm. région bu magistrat parce que cour d' appel jël ay magistrats ñoom ñooy surveiller ce qu'on appelle la la régularité des élections. Mm-hmm. avez ci saar ci centre mais nee na ba léegi jotuñ euh, lettre bu jógee ci gouverneur région bi convoqué séminaire ce n'est plus possible. moo est-ce que techniquement légalement demain, techniquement. élection mu nekk 25 février. maintenant le conseil constitutionnel doit dépasser maintenant les dispositions de la constitution. nous ce qu'on appelle ci science politique. données politique li mu joxe léegi mu demee ñun foofu. parce que le contexte et le prétexte da ko obligé mu ànd situation politique fi xew. lan mooy le 25 février kenn mënul dem élection techniquement damaa jël sur le plan juridique et financier kenn mënul dem techniquement sur le plan sur le plan technique élection mënul am maintenant pour la sagesse dont on les prête ce nom-là, la sagesse. La sagesse voudrait qu'on connaisse sage, mais c'est lui qui donne les bonnes idées, les bonnes orientations. Nous les appelons de donner la bonne orientation pour, pour, une, bonne décrypation sur le plan judiciaire. Parce que le président a donné le ton sur le, pour la sur le plan politique. Mais mhm. Nous, on les prend sur le plan judiciaire, sur le plan juridique, cette décrypation. Nous, on, comme ça, nous avons trouvé une solution. nous n'est que troisième poule. Nous, on a fait une élection de Parce que le jam, jam, jam mais mais bu fekkente ne dañuy xoolaat li nga xam ne moom mooy euh, processus électoral bi. Mm-hmm. xoolaat peut-être les candidats yi nga xam ne validé woon nañ leen parce que wax nga ko sànq am na si ñoo xam ne validation bi jaarul yoon. am na si ñoo xam ne le fait que ñu ñu ñu invalider la aussi jaarul yoon. mais bu ñu naree defaat yooyu yëpp est-ce que jàpp nga ne élection dina mën am le 15 décembre. si mën na nekk je dis que si les conditions sont prévues ça à dire bu ñu amee volonté ferme parce que problème mooy volonté bi si les acteurs ont la volonté ferme d'aller aux élections sur la euh, relative à la date qui sera arrêtée par le conseil constitutionnel fixée par le conseil constitutionnel. le conseil constitutionnel propose assemblée ah, moo ko proposé moom mooy cagul ko yëpp mën naa dem ba au de 15 mën naa nañ dem ba ma la moom mooy apprécier maintenant mm-hmm. ga euh, assemblée du mooy force conseil na ko ban ngay def assemblée ko proposé mm-hmm. loi bi yàlla ñu ne ko lay seetuñ loi bi mën naa xool sur tous les plans vérifier les conditions de faisabilité et d' parce que aussi le temps nous est waaw tëj jot na. daa mel ne waxtu wi jot na de. ayca Ndof tëjal. waaw kon di jaajëfal bu baax suñu <clears throat> suñu invité monsieur Thiam ci leeral wax dëgg yàlla moom xam naa am na lënt lënt yi amoon. ci kii tey tey tey tey leer na quoi macha allah xam-xam bi set na.